bismillah barke borom Touba aousubillahi min asheytaan irajim bisimillahi rahmanirahim barkeb Serigne Touba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu kon ginnaaw bi ñu suñ boroom borom julli ci yonent bi di ñaan ci barkeb Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul suñ borom yàggal fi xalif général des mourides Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké waaye yàggal fi mboolem ñim seqal déeni ji rawatina nag gox bi ñu nekk muy goxu Kajoor ak mboolem ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci biir réew mi ba bitim réew ñu ngi leen di ñaanal ñu yàgg lool te ba yéen a jun am ngir liggéeyal suñu borom ci barke bu rasulillahi suñ borom kàttanal leen mbokk yi niñ koy defee at mu jot ñu ngi waat fii nag ci Daaru Faal Jogo fii nag buñ fi dajee ci pàkk bu tedd bii xel yépp day daal di dem ci góor yàlla gi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku muy Cheikh Ibrahima Fall bokkoon ci kàngami Serigne Touba Xaadim Rasoul loolu tax na nag njaboot gi at mu jot ñu koy ñaanal ak a gis ngeen niñ ko tàmbalee ci njàngum alxuraanul karim suba ak léegi waaye jokk ak mbokk noonu lañ ko fas yéene nag wéyale ci jataay bu am solo boo xam ne nii moom lañuy tëjee mm, euh, màggal gi ci loolu nag xam naa ne dañu ñoo joxoon ndigal rek ngir ñu def benn présentation bu ndaw ginnaaw bu ñu ziyaare kilifa jataay bi di Serigne Moustahine Mbacké nekk représentant di xalif général de Mourides ñu ngi koy ñaanal moom itam mu yàgg fi loolu te xam naa kiy wax ci kàddu kilifa yi dina gën a yaatal ci mboolem kilifa yi nga xam ne nii teew nañ fi. kon jataay bi nii la fas yéene tëddee sëriñ Abdou Khadre di xalifa sëriñ Ibrahima Ngone Fall moo fas yéene jëkk yëkkati kàddu buñ ca paree sëriñ Omar Fall dina yëkkati kàddu jëmale ko ci organisation ak mboolem taxawaayu euh, ndaw ñi ci liggéey bi gannaaw loolu sëriñ Ibrahima Sawru Fall moom mi nga xam ne nii moo doon coordonné liggéey bu am solo bi dina yëkkati kàddu dalal mboolem gan ñi fi teew moo xam muy kilifa diine wala kilifa aada gannaaw loolu adjoint au maire di monsieur a Thioune dina yëkkati ay kàddu euh, ak délégation bi mu àndal xam naa bu ca tolloo dina ko mën a lim monsieur le sous moom itam de l'arrondissement de Mewane moom itam teew na di monsieur Cheikh Sow moom it dinañ ko jox kàddu ñu door a jox kàddu nag sëriñ bi xam naa bu amul beneen soppeeku boo xam ne ni dam nañu noonu daal la ñu waxoon ne ni la programme bi fas yéene tëddee kon ñu soññaat mbooleem ñun sañ a soññ ñu gën a teewlu kilifa yëkkati ay euh, kàddu ñaanalante ba déwén incha allahu rabbi ci 17e édition bi nga xam ne nii mooy màggalu Touba Darou Fall Diogo édition 2023 bismillah. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Abdou Lahad jërëjëf Cheikh Abdou Lahad. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu bokk jullit ci bokk taalibe yi yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen dalal dal bu gën a tedd ànd ko taalibe bi ak lislaam ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp bisub tay bi nag bisub sëñ Daaru damay tàmbale rek ndax li nga nee ko ubbi waaye damaa ami ndaw am ay doom ami rek yoo xam man lépp sëñ Daaru nag Ibra Ngoone ni ma àndoon sëñ Daaru moom sëñ Daaru dafay nekkan di magam mu topp ci moom muy kilifaam di lépp mu jox ko cër bu mat sëkk sëñ Daaru dem diggante. sëñ Tuubaa ak dëkk bi Ibra Ngoone yar taalibe yi ak donga yi ak tool yi ñu ànd andi nu rafet nag ci lislaam ànd liggéeyal sëriñ Tuubaa ñu ànd di ànd di ànd ba sëñ Daaru wàcc bi liggéey taalibe yi kenn jàddul mën naa ko wat kenn jàddul ñëpp topp ci Ibra Ngoone ñu ànd andi rafet googu fànn Sowru Fall moom ci gën a mën a sori ak Basiru Fall sama poste parole dara la bu ñu nee ko ubbi naa ko ubbi rek waaye li ma leeral ñu ci daal diggante Ibra Ngoone ak sëriñ Deeru nañu àndee woon ba wàcc bi liggéey noonu la nun ñi fi nekkal sëriñ Deeru ak Ibra Ngoone lu coow li bari bari nu mën a mel nun ñaar noonu leen fas yenee ànd ba ke nu leen di fekk bu soobee dara du ñaawee ci noonu ku nu bëgg bëgg nu ko ko bañ bañu nu ko ndax dëgg rek lu ma fi nekk yoonu sëriñ Tuubaa yi li mu nangu moom ku jiitu jiitu ko toppoo ci rek ku dagu falu ku leb la fay ku notti nga notti ku doo notti ku loolu doo fayu loolu mooy sëñ Tuubaa noonu lay doxee yoon sëñ Tuubaa bi nangul fàqatal sa kilifa nangul jiitu sa kilifa topp ci sa kilifa not rek deewu taalibe nun de ay murid lañ ñu jàngal ci la ñuy dund ci la ñuy dee foofu daal laa ci yem fas naa yéer daal su ma fa jógoon tey naa santaane joxe ndigal képp ku fi nekkal yi bi da ngoone ku fi nekk sëñ doon na nga topp ci ginnaawam rek ngeen ànd doon benn rek ndax Daaru Fall benn bopp la suñuy kàddu nag ñi ngi ko jëme ci ndaw ñi ñu àndal liggéey bi ñi nga xamante ni ñoo nekk li ko tàmbalee Daaru Bey ba ba ngay dem croisement Mboro ndax ñi fi nekk yëpp ñi ngi leen di jaajëfal te di leen sant bu baax di wax ne gis nañu seen taxawaay organisation bi yëpp teg nañ ko ci aw yoon ndax lu jiitu ñaari weer ci ginnaaw ñoo ngi ànd ak ñoom di def ay réunion guddi ak bëccëg ngir liggéey bi jëm waaye alhamdulilahi rabbil alamin tey bi ñu agsee ci bis bi gis na li ndaje yi doon jariñ ndax lépp tege na ci aw yoon ñun ñi day ñoo daan nekk ci kanam di dem di dikk maag Serigne Sidi Male ak ku nel ni Abdoulaye Niang ak ñi topp seen ginnaaw ñëpp waaye tey dañoo toog sol suñu yére yu set loolu nag li ko waral mooy ay ndaw yoo xam ne am nañ pas-pas ndaw yu bëgg seen liggéeyu maam waaye ndaw yoo xam ne tam bàyyi nañ xel kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk seen ginnaaw loolu nag dañ koy sant suñu borom bu baax a baax a baax ndax day aw tund wala ak dëkk mënut a jag mukk lu dul ni ndaw ñi ak mag ñi dañoo ànd booloo di xàccandoo di dóorandoo loolu nag suñ borom defal nañu kon ñi ngi sant yàlla bu baax ñoo ngi leen di jaajëfal di leen wax ni nañu continuer nag di jàpp ngir suñu liggéeyu maam jëm ci kanam ngir suñu liggéeyu kilifa yi nga xam ni moo waral ñuy tàmbalee fii seeni i di ko dox ba njaareem di ko dox ba gànnaar ngir andil ñu sërite bu mel nii kon nag war na ci ñun ndaw ñi ñu fonk ko téye ko bu baax a baax a baax a baax a baax. Serigne Ibrahima Fall boroom daaru sunu borom yàlla dafa defal muy góor bu baax nekk woon lenn lu jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla ak liggéeyal Serigne Touba kon mu nekkan fi ak sama maam ku ñuy wax Alsaan Lo nekkan fi ak ku ñuy wax Serigne Ñaaki Bey nekkan fi ak ku ñuy wax Serigne moor Diouf Jatti ñooñu ci mag ñu baax ñi nga xam ne dañoo daraan sëñ Ibrahima Mangone Fall ci la ñu bokk ànd nag ñoom doon liggéeyal yàlla di liggéeyal yonent bi di liggéeyal sëñ Tuubaa ba suñu borom dogal ñu jiitu seeni njaboot des bi kon loolu rek dama koy tënk ndax jotaay bi dafa gudd dafa yaatuwul ñu sant yàlla bu baax sant yonent bi sant sëñ Tuubaa te ñaan ñu yàgg koo teewee bismillahi minash shaytaani rajim bismillahi alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala mabuusi rahmatan lil alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi dawi ridwani wa tamkin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi yëkkati sama kàddu ci turu sama wayjur di suñu sëriñ di suñu jëwriñ ci kër Cheikh Ibrahima Fall borom dëru muy ab xalifaam sëriñ Ibrahima Biram Fall ak mbooleem rakk yi mu bokkal borom dëru Fall gépp di nuyu njabootuk Cheikhina Ahmad al Xadim gi ñu yàlla booleel fii ci sow jant rawatina Darou Fall ñu jiital ca Cheikh Mouhamadou Mousta'in Mbacké ak mbooleem ay rakkam Cheikh Abdoul Karim Mbacké al imam Cheikh Mouhamadul Bachir seen doom ak sëriñ Cheikhouna Mbacké di taawu Cheikh Mouhamadul Moustahine waaye di nuyu seen mbokk yi baax yi bàyyi ko ci ay gox yi fasanti ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad teew fi waaye Cheikh Mouhamad Mbacké kër Bakar itam. teew na fi ñu di leen nuyu bu baax te di leen ziyaara ci kilifa yooyu fi teew bokk na ci sëriñ na Diouf muy xalifa sëriñ Mor juuf jatti kilifa yi fa teew bokk na ci Baye Serigne Mbaye xalifa Serigne Mafal Mbaye kilifa yi fi teew bokk na ci sëriñ Maam Mor Kan xalifab sëriñ Cheikh Maguette Sarr mu teewu fi waaye teewal seen kilifa seen jëwrin muy sëriñ Mame Balla Kane muy xalifab sëriñ Mor Kumba Kane mu ànd ak rakkam sëriñ Saddeex Kane moom ñu fi daje ñëpp daje nañ fi ngir lu bari waaye jataayu sëriñ Mame Mor Kane ak rakkam walla jataayu sëriñ Mor Kumba ci jataay bii moom dafay fedd li démb bi sëriñ tubaaja ndax ca gànnaar la sëriñ bi boole woon sëriñ Mor Kumba ak boroom daaru ni leen boole naa leen kóllëre yàlla dogalee borom daaru wàcc liggéey fii ñu toog ni tey di ko ñaanal ba ñu teg ko fële di ko jullee ci jàkkaam la sëriñ Mor Kumba Kan ni jaliñ loola di firndeel booleeg sëriñ Touba ndax jamono booba dem yombul waaye jokkookaay yi amut ndax loolu 1920 la kon sëriñ Mame Mor ñu ngi leen di dalal ci ëtt bi nga xam ne seen ëttub maama am ngeen fi cër bu rëy rëy waaye bokk na ci kilifa yooyu fi teew Cheikh Abdoul Ahad Ndiaye xalifa sëriñ Mor Ndiaye àndaal bokk na ci kilifa yi fi teew sëriñ Dame Silla moom sëriñ Sawru Silla sëriñ Mbacke Mbay moom Cheikh. moom Serigne Cheikh Mbay di sëriñ Serigne Mafal Mbay ba tey Serigne Jili Mbay Njaane teew na fi moom itam euh, bokk na ci kilifa yi fi teew Cheikh Mouhamadou Awa Balla Diouf moom Serigne Touba Diouf bokk na ci kilifa yi fi teew rakkam Cheikh Mouhamadou Al Habib teew na fi bokk na ci kilifa yi fi teew Euh, Cheikh Mouhamadou Bousso bàyyi ko Touba ñu ngi koy nuyu ci di ko ziyaara bokk na ci kilifa yi fi teew sëriñ Souleymane Diouf bokk na ci kilifa yi fi teew Serigne Sidi Berkoom bokk na ci kilifa yi fi teew sëriñ Khadim mbay moom Serigne Massamba Mbaye moom Cheikh Sadie bokk na ci kilifa yi fi teew Serigne Ibrahima Thioune ànd ak Serigne Cheikh Darou ak Serigne Cheikh Safiyatou Thioune ñëpp teew nañ fi bokk na ci kilifa yi fi teew seexu Cheikhouna Fall moom Serigne Abdourahim Fall bokk na ci kilifa yi fi teew Serigne Maam Thierno Fall bokk na ci kilifa yi fi teew Serigne Abdoul Ahad Gaye bàyyi ko njàng Gaye ñu ngi koy nuyu di ko ziar. bokk na ci kilifa yi fi teew sëriñ Abdullahi Fall ñu gën koo xam sëriñ Abdullahi Fall Ndar moom sëriñ Abdullahi Fall moom Cheikh Mouhamadou Aminata Fall teew na fi ànd ak rakkam sëriñ Cheikhouna Fall bokk na ci kilifa yi fi teew sëriñ Dame Jenn moom Cheikh bu Jenn moom sëriñ Bara Jenn moom Cheikh Issa bokk na ci kilifa yi fi teew sëriñ daam jenn moom sëriñ morkan jenn ndaru jenn bokk na ci kilifa yi fi teew sëriñ maam lamp fall moom sëriñ am di xadi fall mi nga xam ni mooy ëtt bi mooy néegub way juróom jigéen ndox soxna xadi fall mi meññ sëriñ am di xadi borom ëtt bi moo ko meññ sëriñ sëriñ bi lay dalal jàmm di la wax ahlan wa sahlan kon loolu mooy kilifa diine yi fi teew sunu kilifa yi nga xam ni ñoonu nu jiite ci administration teew na fi teewal fi njiitu réew mi sëriñ Cheikh Tidiane Sow sous-préfet Mewane ànd ak délégation bu mag ñu gën ca ràññee adjoint maire Serigne Harouna Thioune sëriñ Mor Maar mi nga xam ne moo jiite commission domaniale sëriñ Xasan Ba moom itam conseil la sëriñ Ousmane Ba ñu fekk fii seen mbokk di adjoint muy sëriñ Ibrahima Fall moom suñu maam alxaaji Njàng Fall moom sëriñ Ibrahima Ngoone Tine mi nga xam ne bii borom daru bàyyi ko fii 1920 moo ko fi wuutu ba mille ba mille neuf cent quarante muy ñaar fukki at ak juróom-ñaar maamam moo ko wuutu borom daru ci liggéey bi bokk na ci ñi e, kilifa yi fi teew e, e, kilifa gi fi teewa toogal Eaux mooy suñu kilifa gi juuf ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jotal cantuk tund wi yëpp liggéey bi rafet na sell na yaa ngi jëfe li la say kilifa digal waaye teewut nag yaa ngi naxtaan naxtaan nante ak njaboot gi ñu ngi lay sant bu baax gendarmerie itam adjoint commandant teew na fi monsieur Diouf moom it ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di wax Cheikh Tidiane Sow ni ko nga dellool nu cant monsieur le sous-préfet Abdoulaye Kharma ndax benn kilifa gi yabalee ñu dem fa jéego yi mu war a dox yëpp yi nga xam ne moom lañ ko sant dox na ko itte bi mu ko war a jox yëpp jox na ko ko mën nañu ne dafa nekk ci wàccaay ñuy sàkku ñi fi teew ñëpp ñaanal ko dafa bëgg a dem baytilaayil xaram ginnaaw mooy kilifa gox bi nag tàggu na gox bépp nañu ko ñaanal yàlla mu dem ca ñëw ñaanal ko yàlla it mu am xajjan mabruura yal na ko ko yàlla defal Euh, bi yàlla dogalee ñu dem kilifa yim ñu boolee leen yëpp taxaw nañu ci liggéey bi bokk na ci gendarmerie gis nga kilifa gi mi ngi taxaw boobu ba léegi mu ngi fi nekk di defar circulation yi bokk na ci it sunu kilifa gi lépp lu jëm ci màggal gi ci mat jàppandil na ko ba mu rafet waaye di ci beralaat cant itam CCO gi nga xam ne ci seen kot lañ ko doon jëlee ñoom itam jàppandil nañu ko. pour nga jotal nu leen ay cant sëriñ Babacar Seck moom it bokk ci kilifa yi nga jotalal nu ko cant monsieur Hassan Diouf mi nga xam ni it moo moo jiite poste de santé Diogo moom itam yàlla dogal na teew na fi def nañu couverture médical bu am solo te loolu ku ne xam na ni barab yi mel nii itam wàllu wér-gu-yaram da cay baax ndax dana tàng te ñu bari duñ ko miin waaye teel nañ fi ñëw di sant nag monsieur le maire góor Kane ñu ngi nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ni dañ fi ñëw nga xam ni organisateurs yi la waaw ñëpp ñi nga xam ni ci wàllu organisation bi la ñu bokk ñooñu aussi seeni nuyoo dañ koy teg ci Serigne Ibrahima Fall Sowru mu jàllaleel ñu ko ci organisateurs yëpp ak ñëpp ñi nga xam ni teew nañ fi. ak bépp bureau même membre boo xam ni ci bureau municipal bi la bokk. ay ma dolli leen kóllëre gi nga xam ni le maire Magor Kane fas na ko yéene wala jël na ko ànd na ko ak yéen loolu la fas yéene continuer ba keroog mu fiy jógee incha allahu rabi ba keroog yàlla suñu borom tudd ko. loolu bisu ñaan la dañuy ñaan yal na yàlla suñu borom nangu lépp lu ñu fi def ci wàllu ñaan ñi fi ñëw ñëpp yal yàlla suñu borom defal leen yiw ku ci nekk fa nga war a jëm yal na yàlla suñu borom jàppale ba nga delluwaat ci jàmm yàlla dajalewaat ñu fi at yu bëree bëree bari dañ fi ñëwoon ci tuuru monsieur le maire Magor kan mi ngi leen di sant empêchement moo ko teree ñëw mi ngi sant mi ngi gërëm di ñaanal ñëpp ñi nga xam ni teew nañ fi di sant ñëpp jërë ngeen jëf. di leen wax ni nag tey dama fi ñëw teewal fii sama kilifa muy Abdoulaye Kharma délégation bi ci àndal duma ci waxaat ndax Arona wax na ko sama kilifa nag wax nañ ko léegi ci biir wax. dafa war a dem Makka te ñu woo ko dakaar mu am yu fay def loolu moom moo tax ñëwul man nag fii dama fi ñëw ci ñaari casquette benn casquette bi mooy chef de l'arrondissement beneen casquette bi mooy wëllëre Ibra Fall adjoint au maire donc di kontaan trop di ñëw fekke bés yu mel nii di leen wax ni tam ñu am kóllëre ngeen bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin mbokki jullit yi mbokki talib yi leen di nuyu ci nuyu islam ba gën a tedd di yëkkati suñu kàddu ci turu suñu kilifa Cheikh Mouhamadul Mousta'in muy tàmbalee nuyu bi kon ci suñu wayjur wii toog di Cheikh Abdul Akram Mbakke mu ñaan mu barasiku ba ci mboolem mbokk yëpp ñi ñu bokk Sëñ Tuubaa ak nuñ ci mën a bokkee ñëpp ko ñu leen di siyaare bu baax a baax di siyaare ki nga xam ne mooy sëñ Ibrahima ak rakkam sëñ Abdul Xaadir ci ni nga xam ni noonu lañ ko toftalee ci ni ñuy dunde boole seen lépp muy benn kon sëriñ baa ngi leen di nuyu di nuyu mbooleem Mm, njabootuk maam boroom daru ñi nga xam ne ñoo xewle tey woo adduna ñu wuyu si leen ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen ziara di ñaan ngeen am ca ngërëm te gën koo man ba lépp lu ñu ci seenu am ci lu kawe njort di nuyu bu baax a baax itam kilifa yi adduna yi nga xam ne ñoo fi teew te kenn ku nekk jël fi kàddu ñu ngi rafet di kàddu bu baax a baax leen nuyu baax di leen gërëm kàddu yi nag xam naa ni xaw naa waxtu yoo xam ne ci tënk ba tax sañ bi day dolli di leen ñaanal bu baax a baax rek di leen sant te di leen xamal ni yoon wi rek mi ngi nii ndax ki nga xam ni moo tibbal ñépp moo tibbal seen maam muy Cheikhul Khadim nit nag bu su ko joxee ndab mooy fexe ba ndab la dolli ko mooy fexe ba ndab la set dara jomb leen ci seen maam ci seen maam nu bis ku sëñ Tuubaa defar rek bis bi mën naa àgg loolee nag dafay tënku ci seen pas-pas yéen ak seen doxe te it ngi ci aw yoon ndax nii rekk la su ngeen àndoo nosu def genn kàddu def genn kàddu am genn kilifa lu ngeen bëgg mu yomb waaye waxtu ngeen tasaaw ni ko alxuraan waxee da ngeen néew doole seen kattan dana dem te it adduna ji ñu nekk kilifa yi jaar léegi wax nañ ko tudd ci kilifa fii bari na lool lu ma fi wax di wax wàllu kilifa te lu am solo la waaye kilifa ñaare ku ko nangoo ñàkk da ngaa jaaxle wut ku jaaxle wuti kilifa mbaa nga wut ko am kilifa li ngay mujj bu naqaree nag booy ba njëkkoon ba muy neex ndax mu gën rawatina képp kuy wuyoo ak taalibe ndax koo xam ne dangaa jaayante ni muumutoo dara nga jox sa lépp loolee war nga foo toll di ko fedd li war nga di ca dox di ca wax te it waxtu woo sàggana sa bopp ba koo xam ni xamuñu kumu ak fumu ak fum jóge ak lu mu yor naan sam xel yàq sam xel ba ngay jiixi jaaxa nekk ci leen dana yàqal loo xam ni mënulu ko jëriñ kon doomu aadama ak cër bi ko yàlla jox ak foor gi mu foor ak ni mu toll ci boromam dafa war a waajal boppam xam ci lu muy dugg xam ci lu muy ne xam ci ka muy àndal ndax itam adduna bi ñu toll dara lu fi gën am kilifa di ko am seen sëriñ bi ne mel ni soññi tool baax a baax te di leen wootam ci li ñu fi bàyyi muy ak jaam yàlla ak dox ci aw yiw ak dox jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj di ñaan tam réew mi ñu nekk yàlla def fi jàmm képp ku fi nay ku fi namm lul aw lul jàmm ak komandoon yàlla na ko yàlla fanq ndax diine ji ñuy dund di diine islaam diine jàmm la yàlla mandargaale ko al islaam ba tax bi mu tëj diine yi sax daal ni diine ji ci diine yi ku ci bokkoo sa diine kenn du ko nangooti diine jooju mooy diine jàmm muy inna diine inda allahi al islaam wa joo xam ni ñi koy dund seen lépp daf ko mën a def ci jàmm di leen nuyoo alayhi salaam wax ni nuyoo de mooy jàmm te benn la ci tur yàlla yi dee leen ko saxal ci seen biir ngir yàlla dafa liggéey koo xam ne nag dañ laa digal ngay sàkku jàmm di ko wax jàmm dañ koy wajal muy kilifa muy ku ñu yilif ki yilif xam ni lii mu laal du indi jàmm ngir jàmm war naa tax mu dellu ci ginnaaw ki ñu yilif di dugg ci loo xam day indi fitna bëgg jàmm war naa tax mu dellu ginnaaw te loolu nag lañ cay séenu mooy kilifa yi jiitu nañ njëkk a wane aw yoon tege ci dëgg dox ci yoonu leer nañ bu ko defee ku ñu wax nga mën a dégg kilifa lu mu rëy rëy daraja suy wàcc aw yoon darajam di wàcc ci ki ñu koy xool donte ci donte seen xol buñ ko ñëwee wax ko ñëwul ko ñëw di ko xoolee xeeb ko kilifa lu mu tuut tuut li fekk ñu dëgg sax su muy dëgg ku ko xool ak noo mën a toll di ko jox cër kon dëgg googee nañ fexe ba ñëpp tënku ci ndax dëgg rek mooy ndax jàmm ji ñu sàkk muy dëgg jaamu yàlla gi ci sunu ci ci sunu muy julli ñu ko yent bi aleyhi jàngale buñ ko defee bay jeex jé jeexaluñ sant yàlla joxuñ sab lañ naan asalaamualeykum mooy ne yàlla na jàmm nekk ci yéen jàmm jooju nga xam ne nag ñi julli waxtu nañ wax juróom yoon ngal la nit ki lu muy wuyoo na ko nuru na xam li muy wax lan la yaa ngi dund diine jàmm sab téere li wàcc ci baatu alxuraan ci jàmm ëpp na téeméer ci tëgg tëggin mën a doon moo xam masdar wala moo xam fi àlla waaye lépp li mu wund mooy sàkku liñ jàmm nekk li ci jàmm kon dañuy gàttal kàddu fii te xam ne waxtu yu xaj na ñu ngi dal di ndokkeel képp ku sant Fall ñu leen di ñaan bu baax a baax yéen ndaw ñi ni ko seen kilifa yi bu ñu sunu seen bopp ku ñu sonal mm-hmm. bu ñu sunu seen bopp sonal keneen tënku leen ku ñëwagul woon na ñëw ku ñu woon nekk fi te ñëpp ànd dafa tax dara am njëriñ waaw daawaana alhamdulilahi rabbil alamin dégg sant nañu bu baax naa sunu sang bu tedd bii muy Cheikh Abdoul Akram moom Cheikh Abdoul Ahad sëriñ bi ñoo ngi lay jootal cantuk suñu bàyyi sëriñ Ibrahim ak njabootuk Darou Fall gépp ak mbooleem tund jogo mën naa wax ne làmmañu ñëpp laa ci sant la ndax ci la ñëpp dëkk ndax jamono bu ne ñu ngi koy dégg sëriñ bi ku ne xam na ni ku ñàkk a mën a yàgg ci barab la waaye jaboote gu mu jaboote ñëpp moo tax ñu ñaan ko mu ànd ak doomam yi tedd yi tëjal nu jataay bi di la seedeel ci sa doom yi tedd yi te jiitu ci Cheikh Mamadou Moustahine ni mooy lépp moo mooy tàmbali mooy tëj ndax moo fi ñëw doon fi sëriñ Touba nekkal la fi ba nga fekk ko fi mbakki kon nag ñoo ngi lay seedal ak cant ci moom njabootu boppam di rakkam yii Cheikh Abdul Karim mii munu booleel muy jiite jumaa ji Cheikh Ahmadou Mourtada seriñ Bassirou seen doom ñoo ko jox ndigal ci jumaa ji mu fi la ab kaamil weeru kor wu nekk loolu lépp ci taxawaayu sa njaboot jii la ndax ñëpp yàlla njaboote mbakki bareen ji xam naa ñetti jàkke ci Daaru Faal yoo xam ne yëpp kaamil lañ fa la kon lépp ak yokk la Mbàkke kon nag ñi ñaan suñu borom yàggal la fi lool te la lool xam naa sëñ Ibra nee na Lamine Sène mi ñu dénk mbirum religion ci maire bi mi ngi ñëw ak Lamine Guèye euh, monsieur le maire moo leen yabal ndax ñoom leen dénk wàll googu kon nag ni ko mbokk mi doon waxee rek mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo yilif ay dëkk ci ci gox yi tund jogo yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni kon kilifa yi sang su tedd si maa ngi ñaan bu ñu jógee nu ànd dem ca barab yële rek ñu indi fa xéewal yi loolu rek lay ñaan waaye loolu rek lay ñaan ci ñëpp incha allahu taala di sant kilifa yëpp di leen gërëm wax dëgg yàlla jataay bi yàgg na métti na waaye toog ngeen ko di sant mboole mbokki jullit yi fi teewoon yëpp yàlla nañu dellu ci jàmm jéego yi ñëw yi yàlla na doon njëgal bakkaar jéego yi dellu yàlla doon doon yëkkatiku daraja ci barke Seexna Ahmadul Xadim kon ñu tàllal loxo yi sëriñ bi defal nu ñaan bismillah